rawatina plutôt ministère u jeunesse bi ñing ngi koy jàppale de façon directe ci xeexu Covid bi euh, ndax xamnañu importance su jeunes yi ci lepp lu jëm ci sensibilisation ak fexé ba liñ daan liggéey biñ ñu daan liggéey jëmele ko ci jeunes yi ci li santé de la reproduction liggéey bobu baña dak mais ñu mën ko continuer

ni ngeen ko gisee nii ay gel ay thermoflash ak yeneen ak euh, la dispositif de lave-main ak yu demee noonu donc matérielu protection protection bi dafa important pour continuité service yi mun a am ndax service yi ku fa ñëw nga mun a set nga mun protéger wu. ak aussi matériel boo xam ne euh, euh, jeunes yi nar def liggéey bi ci terrain bi di def les visites à domicile di def yeneen activité de proximité yi tamit dañ koy soxla donc loolu la indi pour jox ko ministre de la jeunesse bi tey euh, di wax ni lii tamit pàcc bu am solo la ci fait euh, bi ñuy euh, Covid avec le gouvernement Sénégal donc l'UNFPA a remercié remercier gouvernement Sénégal si mesures yi mu jël te continuer ko wéyal ngir en tout cas xeex ak Covid bi ak population bi. ñu fi indi mi ngi si cent millions su ma bu millions ak lu top donc euh, non, la tol manam téméri millions ak lu top wa ndaw yi dañu def campagne bu les réseaux sociaux Nous ëpp na euh, ñaari ak donc euh, campagne encore biñ koy mënul donc réseaux sociaux